ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk programme bi national international. Vous êtes établi au Sénégal ou à l'étranger et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers villas, appartements, maisons, bureaux, commerces, immeubles. et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité. N'attendez plus. Contactez vite l'agence Techno Habitat, votre agence de gérance immobilière qui vous propose des services de gestion locative rapide, rigoureuse et transparente. L'agence Techno Habitat vous assure en même temps une totale sérénité, où que vous soyez. L'agence Techno Habitat se trouve à la cité Mermoz, face ancienne piste, villa numéro Contact 73 73 agence Techno Habitat la clé du bien-être mbokki internet Tawfekh Production ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax baax di am mbégte ñëwaat ak yéen ci actualité de la semaine euh, di leen rek euh, masawu tamit coono bu baax a baax ak tamit di leen euh, jox seen wàccuwaay di ziare ñëpp ñi ci béréb bu Sénégal xalifa généraux yëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax yaa leen yàlla may wér Serigne Mountakha jiital ko ci bopp lépp nuyoo Basir yaan fi ak loolu te ànd ak wér ak njaboot gi yëpp di leen béggee bu baax a baax di leen fàttali également ne woy leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme ci Tawfekh Production ci gën a yokk abonné yi gën a rek bës cloche bi ngir ngeen mën a am euh, lii nga xam moom moo di sunu ay information ñu guidé leen ngeen koy am en temps fii ci biir ak ci bitim réew euh, ci réew bu Sénégal nag la ñuy ñëw ak actualité de la semaine xew-xewu ayu bës bi euh, ku ko wax nag xel yëpp dem ci coowul Miss Sénégal 2020 bi nga xamante ni judd na ginnaaw bi ñu remettre sacré bi muy bu muy Sénégal deux mille vingt et un euh, mu nekk loo xamante ni nag jot nañu taxaw ci tuuti def ci ab euh, taxaw ab gëstu ab seetlu bu euh, am am solo mu nekk loo xamante ni nag interpellé nañu mais pour rester sur les faits rek parce que on a entendu dégg nañ les deux versions qui sont données par également. Euh, le comité qui est accusé par également l'accusatrice rawatina la euh, Miss euh, euh Fati Ndeye Fatima Dione déglu lañ sa maman également sa version bi nga xam ne expliqué na ko sur les faits l'origine de faits ak li nga xam te am na rawatina viol bi ak problème yi ñu dund ci mi Sénégal mais juste duñ dugg ci dans les détails ci li nga xam te moom moo am ci loolu waaye ci euh, organisation Miss Sénégal deux mille vingt 2021 ci la ñuy pointé du doigt mu mel ne dañu jàpp ne loolu dafa feeñeel ne fii ci Sénégal bu ñu dégloo mbir mi ni mu tëddee ak déglu nañu également les témoignages yu Miss yi nga xamante ni jot nañ cee jaar jot koo def day mel Sénégal euh, lu bëri war nañ ko càmbar lañ bëj ko lu mel ni comité Miss Sénégal pour man euh, tey jii ñu ngi dégg coow li fu nekk ñu ngi wax mais on n'a pas encore entendu euh, le, le la tutelle le ministère bi nga xam ne en charge de cette organisation wala le ministère de la culture ana tey jii ban position la ci am aussi ana aussi naka lañ doon doxalee yan critères lañ doon joxe licence yi ak licence u Miss Sénégal bi parce que d'ailleurs dégg nañu ma Makhtar Gueye Jamra euh, di ci wax ak yeneen organisme yoo xam ne ñu ngi sàkk à ce que euh, plaider à ce que ñu retirer cette licence euh, bu comité Miss Sénégal 2021 mais pour man tey jii am na ci liggéey bu am solo bu ci la tutelle war a def parce que moom comme mooy délivrer licence bi à travers la tutelle aussi ñoom ci seen tutelle la nekk war nañoo xam dëgg-dëgg mbir mi la tëddee woon war nañoo def le contrôle qu'il fallait faire est-ce que def nañ ko est-ce que critères yi ñu doon joxe miss bi euh, comité bi ni critères yi ñu leen tànne yi ñu doon doxalee est-ce que réunir na loolu aussi lu mata mata mata bàyyi xel fii rek Sénégal la ñuy samp dara wala sos dara wala nit am dara ñu jox ko rek mu dem te du ñu xam nan la koy liggéey ñaat nit ñuy xëy di dem di wuti licence ci yenn euh, organisme wuti ay mm, dem chambre de commerce wuti ay registre de commerce wuti ay papier ay NINEA yu bëri te doo xam à la suite lan la ciy def déggoon nañ fi coowul euh, yeneen ci ay këru liggéeykaay yu am yu ni mel euh, bëgguma ko citer mais ça dit que ça interpelle également que suñu suñu administration sénégalaise elle est elle est elle dort elle dort elle est malade aussi parce que naka ngay mën a délivrer yenn yi aussi amul benn suivi boo ci war a mën a def pour xool est-ce ki ma jox sama lii kat euh, mi ngi ci def liggéey bi nga xamante ni xëy na war na wala bokk euh, même bu dee euh, tey jii ne sa ce que sax benn contrôle boo xamante ni dina am say ndaw yu koy def mooy li am ci location bi doo gis ku dem di ko wër wala yeneen ak yeneen ak yeneen ma jàpp ne tey jii li ci am solo mooy ñu xoolaat également suñu revenir ci suñu ay valeurs culturelles ci suñu euh, ay jikko yu baax euh, ci suñu ay enracinement ñu delluwaat ci race ci suñu ay racines ci suñu euh, fi ñu cosaanoo Miss Sénégal lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu jéggaani maa ngi koy dem rek ci télévision bi dañu ko imposer c'est-à-dire dañu ñëw fexe ba ñu dugal ñu sur euh, sur dans les grands concerts ñu wan ñu ne kat ah lii mooy li war a am lii euh, saka Sénégal boo waxee ñu ne àdduna bi mooy évoluer mais àdduna ak lu évoluer évoluer euh, di nga gis ne chaque pays garde sa sa culture ses valeurs culturelles maintenant ñu nag dañu dem ba mix culturel mix culturel boobu dafa dem ba mënatu identifier d'ailleurs ban culture la ñuy exposé euh, te it euh, ñu xam ne lu mel noonu euh, du lenn loo xamante day valoriser également nit pour man Miss Sénégal deux mille vingt deux mille vingt et un sax mais Miss Sénégal en fait en grande d'une manière générale amul valeur valeur bu muy apporter valeur absolue bu muy apporter man gisuma njëriñam. Bien vrai que peut-être du point de vue diplomatique, elle représente euh, le pays, etc. Mais qui y a un critère le représente et ak ci une façon le euh, représenter. Malheureusement, il y ouvrir une bresque ne lu yàgg am la fi ñuy trafic d'humains laa ko mën a tuddee ñoo xam dañuy jaay nit ñi je l'ai dit également la fois passée ne am na ci ñoo xamante ni tey ji bu njëkkoon suñu kilifa yi mag ñi maam yi li ñu doon def di jaay ay punkal di leen yóbbul ci eh, tubaab yeeg waa tugal ak temps colonisation bi mais c'est ça moo tax nous sommes tous dans un monde néocolonialiste c'est-à-dire que aujourd'hui néocolonialisme bi dafa am e c'est une réalité mooy que tey ji y a un trafic d'humains d'humains qui ne dit pas son nom moo xam dans euh, dans certaines séquences yoo xamante ni dañ koy gis muy daw dans les télévisions moo xam yenn mbir yoo xamante ni day firndeel que ne nit ñi dañ leen di jaay mais de façon professionnelle et organisée ba nga xamante doo xam ne euh, doo ko mën a identifier mais tant benn paf amu ci doo gis ne kon lii ah amoon na comme li xew nii donc mu nekk lu ñaaw lu bon a bon bu fekkente ni nii aussi dañu nekk ci réew bu nekk ci yoon dans ces cas de figure dafa war a am lu ñuy wax l'autosaisir maanaam euh, le le procureur de la république ki fa toogal toogal ma fa toogal fa ñëpp képp kuy doomu xeebu Sénégal dafa war a auto-saisir ci dossier bi topp ko ne serait-ce que bi sax ñu woo leen ñoom ñëpp benn par benn saytu leen parce que y a viole ki qui produit qui s'est passé euh, la la fille qui est accusée d'ailleurs na mais accusé dafa accusé mais xamul kan la accusé en fait c'est dans le X maintenant le X là qui est accusé dañ ko war a déterminer xam kan la donc le procureur de la République est directement interpellé là-dessus mu war a jël mbir mi les dossiers en main pour topp ko parce que lu mel ni waruñ koo bàyyi mu nëpp parce que dina ubbi yeneen bunt ñu ngi koy wax avortement médicalisé ak yeneen ak yeneen loo xam daa temps yëpp juróon na fi coow donc il est clair et net que mu ñoom sax waa comité bi lu mel ni dafa war a leer et sans leur arrange daf leen di jàppale pour que aussi ñoom ñu mën cee set beneen bi mooy euh, booy xool souvent aussi waajur yi parents yi ils sont souvent responsables nañu xoolaat seen doom yi alal bu la jaral sa xale bu ndaw boo jur nga yóbbu ko ñu koy jàngal yenn mbir yi euh, mu dem di jàngi ay défilé di war mbedd yi di di di futteeku nañu xoolaat xale yi nañ leen yaraat parce que tey jii je pense que ñu ngi koy wax éducation bi bu fekkoonte ni normalement jaar na mu war a jaaree jaar na dans les règles de l'art je pense que xale yi duñu am benn objectif fu ne dañuy dem bokk ci lii parce que li leen fa yóbbu mooy le bien matériel mooy un avenir meilleur un lendemain meilleur donc loolu moo leen di motiver ba ñu dem dugg si guddi gi ba si bi dal leen ci na ñu xoolaat mbir lii day wane que ne am na ñoo xam tey jii jërul ñee kenn am na ñu ci dund ñoo xamante ni. bu ñu la waxee fi ñu jaar ci mbir mi mel mi sa nopp day sa loxo day dar sa gémmiñ euh, nopp dalawti donc nañu xoolaat suñu ay valeur nañu xoolaat suñu ay jikko Sénégal nag dafa am lu fi gane si loo xamante ni bu ñu ko seetaanee nii kenn xamul fu mu jëm nañu waat waat xel loolu bu baax a baax et je compatis euh, pour la fille Ndeye Fatima ku dégg ni mu wax nga xam ne dañ ko tooñ euh, ku dégg bien vrai que heure ba mu def aussi mooy ba mbir mu amee sa se xëy na waroon na ko mën a teel a dévoiler peut-être. elle avait ses waru ko moo mënu ko woon dévoiler parce que peut-être bi muy bokk yaayam nangu na papam nangul mais ça prouve que ne aussi parents yi ñu mat a bàyyi xel la buñ la lee bul dem ci dara bul dem ci dara parce que après li wolof naan waxu du fanaan àll waaye day guddee kon nañu yaraat xale yi ci kër yi matérialisme bi ñuy dund ci monde bi euh, adduna bi jaxasoo kenn ku ci nekk daw riir wuti matérialisme bi wuti alal wuti loo fi am munoo fi am loo xamante da ngay dem yóbbaale ko fi loo fi bëri la bëri la gis fi ñu ko ñu la ko ëppale dañuy delluwaat gëm yàlla jàngiwaat amaat valeur yi amaat jikko yu baax yi